dire que de Idriss cette cette cette entrevue entre Idrissa Seck ak. Euh, ak ak Ousmane Sonko. Ah, ah. ak Julli Fada ensuite euh, cette entrevue entre Ousmane Sonko et une envoyé de de l'Élysée la numéro deux de la cellule Afrique euh, de de Madame de de, de l'Élysée alors gars dañ nekk di waxtaan. Hmm. loolu lan de toute façon bul weddi ñaari audience yooyu am na. dañu ndax dafa am waxtaan bu tax tey Ousmane Sonko garde benn droit de benn réserve bi ndax France dafa dugal loxoom parce que gis naa sax nga def une une contribution di répondre à Robert Bourgi te gis nga Robert Bourgi fu mu commencé bu commencé fël rek ça veut dire que euh, France commencé na euh, dugal loxoom. effectivement les yàlla xam nga xam na ni laaj nga mbott geenam. ah <laughs> li ma la li ma la mën a xamal mooy. loolu ñaari audience yooyu ngay wax mënuma la cee wax dara. personnellement parce que dama woor damay woor. ci hmm. weeru koor la nekk xamuma ci dara. xamuma ci dara su ma ci xamoon dara sax sama obligation de réserve mayuma ma toog di ci wax nii publiquement tant que notre leader. n'a pas waxtaa waxu ci. awma pour wax ci. par contre munoon nga ma laaj ne ma lan mooy sa xalaat ci est-ce que dem euh, discussion war na am entre pouvoir et opposition. Mm-hmm. est-ce que France war na dugal loxoom ci non yooyu boo ma laajee. non waxuma waxuma wax pouvoir et est-ce que est on peut envisager. oui. Euh, euh, un nu mu tudd un dialogue wala des discussions entre Macky Sall et Ousmane Sonko nan nga apprécier la visite de Idrissa Seck. non la visite de Idrissa xaw ma ndax am na mënu ma ko apprécier. non am na non ah non da nga koy confirmer oui ah man de man de yàlla xam na ni xaw ma ci dara man ci presse bi rek laa ko liiree. Mhm. dégg nga man musuma cee wax ak kenn ci biir parti bi. Mhm. yàlla xam na ko n'importe musuma cee wax ak benn responsable d'ailleurs parce que. jàpp naa ni su amoon dinañ ma woo wax ma te buñ ma waxoon nit du ma toog fii publiquement tant que leader bi waxu ci ma toog fii di ci wax loolu daal laa la ci mën a tontu leneen li dans une république normale dans une démocratie qui fonctionne normalement mais le dialogue doit être permanent hmm. il doit permanent mais au nom de quoi ñu nekk dans une république jàpp ne dañu war a am démocratie pouvoir ak opposition du ñu wax dañu war a waxtaan dañu war a wax quand je dis wax waxtaan sax dafay xaw a nuru tuuti. Euh, compromission compromission. dañu war a wax. loolu mooy yoon ci démocratie. alo yenn analyse yi. Mhm. dañ jàpp ne euh, li France di dox parce que tey Sénégal le verrou du ñu nangu mu sauter. Mhm. Sénégal c'est un nilo de de stabilité. Euh, dans une dans une ceinture de de de feu. Sénégal c'est stratégique c'est géostratégique c'est géopolitiquement euh, incontournable. Mhm. Euh, te tey Sénégal yàlla dimbali nañu ñu mucc ñu jàpp ne am na question boo xam ne mën na mettre le feu aux poudres maanaam deux benn bi mooy les procès de de de Ousmane Sonko moom ak Mame moom ak. Euh, Adji Sarr des décisions qui pourraient en découler loolu mën na indi tension ci réew mi deuxième euh, mbir bi nga xam ne tamit mën na indi tension ci réew mi mooy mbirum troisième candidature bi et que waxtaan yooyu yëpp ñu sumb euh, objectif final bi mooy ne ñu bàyyi institution yi ñu régler principalement d'ailleurs ñu bàyyi justice daf liggéeyam bàyyi institution yi ku mel ni conseil constitutionnel régler la question de la candidature ñu bañ a sóobuwaat ci crise préélectorale bi ñu nekkoon 2011 ba mu valoir ñu plusieurs points de de de de croissance le Sénégal était à ça de de de de le même sort que la Côte d'Ivoire. bon déjà li may njëkk tontu mooy waruñu xaar ci France muy émouvoir ou bien muy jéem a wut luy fay taal bi parce que les premiers concernés ce sont les Sénégalais. ñoom ñoo war a fexe ba préserver la paix ñun sénégalais yi France daf am na fee ay intérêt c'est vrai mais ñun ñoo ko fi ëpp intérêt ku mel ni man waaw man bu réew mi tàkkee fu ma jëm. amoo beneen nationalité dama lay laaj fan laa jëm. Ah, man de man aw ma aw ma fu ma jëm man ah, mais donc man man la war a njëkk soxal balaa muy soxal France France li fi am ay entreprise am la fi am ak di ñu exploiter depuis bi mu fi bi mu pénétrer Sénégal ba léegi bi mu daanelee suñu dammel yeeg suñu suñu suñu teeñ yeeg suñu buur bay boobu ba léegi France jogul ci di ñu exploiter France moomu nag intérêt kese bu fi bu fi jógee woon it day dem feneen rek